ci lu wér la tegu waaw ci lu leer la tegu man mii dem naa Sénar assurance fekk fa góor gi Diop Sénar assurance waaw moom tamit di nit ku baax di nit ku yàlla baaxal Sénar assurance li ci gën a doy waar mooy si ndigg yi macha allah dafa sell waaw ci yoon nan lay teg nan lay teg ci ci ci yoon wu leer waaw waaw te seen assurance dafa jar wut moo tax dañuy dem di xooli waa senar assurance ñu xooli aussi Kandji production parce établissement Touba Darou Rahman li ko jar yaakaar naa ne tey jii képp ku yëngu ci làmb wala nga nekk jeune tey jii sa xel li ci nekk mooy bëgg ngaa am kër dugal ci sa njaboot wala bëgg ngaa am kër dugal ci sa wéyjur boo ko seetee dina la teg ci anam yu wóor anam yu leer moo xam tey nga am terrain bëgg ko tabax wala amoo terrain nga ñëw bëgg établissement Touba Darou Rahman tabaxal la. defal la finition yi yëpp caabi rek la lay jox te incha allah ci condition yu leer la koy teg ba pare macha allah da koy maanaam da koy oyofal ba nga xamante ni yow mën nga koy fay te doo ko yëg waaw kon établissement Touba Darou Rahman jar nañoo seeti ah Mbengue Mboro maa ngi lay nuyu micro baa ngi nii sokk bu ndaw ma nuyu la mais bu leen fàttee <laughs> borom naaru góor de Seydina Ousmane Ndiaye bii bi kooku daa jar a seeti de. jàmbaar la le grand mara waaw nit ku yàlla baaxal la ku bari xam-xam réew mii bari na ay boroom xam-xam yoo xamante ni dañoo làqatu kenn xamul leen waaw bëgguñu sax ku leen gis waaw mais Seydina Ousmane Ndiaye ku jara ku jara ku jara seeti la waaw ku bari xam-xam la ku mën a ñaan la ku aay ci kurus la moo tax man sëriñ bi dañu ñaanal de réew mi daa xaw a doy waar mbayeen yi dañu dañoo doy waar mbayeen yeeg sàmbeen yeeg yooyu duñ la may dara waaw moo tax denu denu kii dañu fasaale ci course gi bu baax a baax a baax mais nga mboro nuyu naa la mais nga mboro yow est que du ndongolo la woyoon sax da baax da man la ko ah. ma daal la waaw waaw moo nekk nii <laughs> maa ngi lay bëggee auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mais bu la neexee mën nga taxaw de xam naa ci ngay gën a wala rek loo sentir so moom la rek ah. lu mu ko bëggee noo ko bëggee taxaw leen ni jàkkaarloo et ngeen xool caméra bi comme ça xam nga mu jël leen live. waaw waaw combat bu neex. Mbengue Mboro. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ama sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di gërëm sama papa ak sama yaay. di gërëm sama papa Modou Sall di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan at wér sama yaay Mariam maa koy ñaanal du fan at wér. di nuyu koñ bu ma jógee caaro yi jàmm gën ñëpp maa leen di bëggee di nuyu tamit sama ko fii sama dëkk Kër Mousse 37 villages yëpp maa leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Serigne Sidi Alxuraan waaw di nuyu Soxna Faat si moom maam Abdou Aziz di wax ñi dem appel bi yëpp maa leen di ñaanal yoonu jàmm ñu eggat jàmm. di nuyu ñu nekk si lalu hôpital ziar ziar général bi. ziar général bi suba la allah. suba may ñaanal ñu nekk si yoon bi ñëpp. Mm, yal nañu yàlla teg ceeru jàmm ñu demat bis dem si jàmm ñëw si jàmm. incha allah di nuyu tamit ñu nekk si lalu hôpital yi. ma leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba ñibbiwaat seeni famille di nuyu tamit ñu nekk si kaso bi waaw di leen ñaanal tamit yàlla génn leen si xat-xat yooyu noonu bañ mën a ñibbi si waat di nuyu tamit képp ku ma àndal. waaw Mengu Mboro moom moo lay nuyu gis naa contestant bi gars yi di mu génnee bàyyi baal ma na ma génnoon hmm. contrat moo tax ma ñëw billaahi hmm. dama sonn naru ma woon ñëw signature hmm. waaye dama signé man as góor am na loo xam ne su ma xasee ba wax ko rek dama koy def waaw làmb ji nag mu doon làmb ju ma fonk mu doon làmb ju ma bëgg képp ku ma bëgg ñëwal jàppale ma si bis bii sama diggante soxu soxu dañoo daje maat yow ma fekk la nuyu la waxat yow tey dama lay wax looy dégg li ngay bañ loo musul bëre loo musul def le 27 nga koy def naa la duma naa la daan man la Samba Linguère bu mag bi day jaay nagam jaay nagu jàmbur la 27 su paasee bool bu ñëw maa teg sama ginnaaw. dëgg ñu nekk si salle bi ah di leen mën di leen jox seen waat waay. waaw ñun sama yaay bu baax a baax ñaanal sama papa yaa ngi ko yaay di leen xel baax di ko ñaanal sama papa di leen ah di ko ñaanal sama mbokku mbir saako yoon numéro deux. ñaanal suñu borom bu leen xel baax bu bëggee sama gars yi ma àndal rek waaw bu leen gën ñëw yaa ko ko toog maa ngi leen di leen si bu bëggee waa jaxaay su ma jugee di leen nuyu bu baax a baax nuyu yaa moral mooy ñu bu baax a baax di wax benn mbooloo li ñu doon lay wax bëriwul. amu mbëkkante nañ mbëkkante waat nañ. fan ngeen mbëkkante woon. eh. dangay xaar dañ lay branché pour. déggoo ma de doo dërëm. yow la ñu branché. yaa ngi daw Aliou boo xamante ne mosoo kaa daw si man ak yow ah. bul dox xamal li ma la wax maa la bu doole maa la loo pare benn yokkaatal ba ci maam Cheikh Rafa du man ak yow xam nga nu mu damay wax du man ak yow de ah keroog da ngay andi ay mbokk man ak yow du ñu ay mbokk du ñu ay mbokk de. waaw ay waay leen si làmb nag làmb boole. soxu man waayu maar yow rek yaa si làmb man waayu maar yow wutuma ay maam Cheikh Fall maa la mën maa la ko doole. soo ma mënee ray ma te làmb jo comme li ma la wax. waayu maat yow soo ma mënee ray kay xaw maa mboq gën a dëgër waayo yow boole. soo ko xam nga loolu noonu déglu ma rek ma wax la déglu ma. sa wax yi ngay wax sa wax yii ngay wax déglu li ma lay wax ñun ay ndaw lañ. xool leen caméra bi. ñun ay ndaw lañ bëri sax wax na ko nee na eh, lambu ji la. lambu xale la noonu la demee nag dañ koy jaayante ne man lu ma eh, lay laaj. maa la mën maa la tudd doole aller retour say mbokk liñ la wax wax leen yow yaay kan. kii ah. góor bu dëgër bi la de. nga yaakaar lambu ji du foofu ngërëb tuur bi. barki maam Cheikh chaque jour da ngay bi nga yaakaar lambu ji du ba nga gëmal sa doole ak sa bëri ak sa fit man loolu laa lay daaneel. man soo ko yaa yaakaar leneen de lu leer laa lay wax yaa ngi xalaat de. damay mën bëre yow. xaw ma suñu combat man ak yow. moom damay mën bëre xaw ma la ak Serafal maa la dàq bëre yow yoroo bëre bu ma daan. waaw baax na ba bis ba jàmm maa ngi ñaan. maa la koy wax sa jour mais mënoo maa gëm yoroo bëre bu ma daan maa la dàq bëre fuuf. waaw xaw ma lu may xel ñaar yow yow sa mënin bu ko bàyyi loolu rek laa lay ñaan. waaw sa mënin bu ko bàyyi mbeng wallaahi ak laa ma jóg yaa ko perte du ma si jóg doo si jóg de. te ma ne soo ko baaxee làmb du yàgg benn. soxu lii ma la wax nañ ko bind teg dama lay duma dama lay daan. ah tey da ngaa dëgër ah. tey da ngaa dëgër. yaa ko am yow bul tëb dara. lépp ay ma waaye yow. ku si mel ne Fama la. waaw voilà kii woote bi dafa teel yow maa leen di bëgg nañu wax woote bi dafa teel. waaye Jilas tamit maa leen di bëgg eh, nañu wax dañoo war a neexal journée bi. tundu xaar nga ñu fay journée bi dafa war a neex dañu ko war a jaay joo fi yor. yaa ngi dégg waaw sama papa Fama la Baas. non da lay napp day da lay wan ni foofu yëpp dem na fa. Jilas sama papa Birame Diouf. ki génnul ki génnul waaw maa lay bëgg bu baax a baax a baax. di wax sama waa dëgg Kër Mousse yéen ñëpp képp ku fay kii tàllal naa la sama loxo waaw di la wax nga ma làmb ji dama ko bëgg soq ñaar laa la wax góor buy rigile wala góor buy daw danga koy xàmmee soq nee naa la ñi nga doon bëreel kii nga jàkkaar loolu du benn. billaah yaa ngi gën a neex a daan. su ma la jàppee lay daan. <laughs> kuy daan boppam du ma daan man. waaw baax na leer naa sa waay man du ma juum de. waaw baax na. yeboo ma ko sax samay mbokk man damay daan sama bopp. wallaahi azim di woo waa Morolan ak si laabu. su bis ma la jàppee. man maay góor bu lay daan. wallaahi la si yow doo am dara yow wootee ko. barki maam Cheikh Fall yow laa bëgg doo sa am dara. sa waay tey dafa neex moo tax yow. du kaddu du neex de du neex. non bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal. maa la gën a tegle fuuf. yow bu doo Cees eh bu doo Cees yow da ngay lem ba ron bu doo Cees. way xaaju nii yow keroog yaa ngi war a bokk di andi gaan booy père a ngi nii toog de xool xam la lu ngeen def wëggu dimanche oo yëpp moo ma de xool ma man ngay waxal soo man si télé naturel bi laa wax ak yow eh ma ngay rabbi rabbi nii ma def brancé doo yem yow doo yem be eh, yemal samay famille dañ lay li muy wax noonu man doxuma si eh, si déggoo ma de loolu delloo si biir kër bi ñëpp ay ndongo lañ ñun ñëpp da ngaa wax ma déglu la kon su may samay famille dañ may seetaan. waaw. samay famille dañ may seetaan. waaw wax wax. mën a taxaw si télé. waaw wax wax joo xam ne. bés bi dañ ko war a taaral. waaw wax ci làmb ji rek tàmbalee ci làmb ji. waaw suy wax lépp lu may wax lépp lu may wax la quoi maa léegi lépp lu ñuy wax. na doon cadre làmb ñun ay ndaw lañ. doomu aadama war na xool simple wax joo xam ne tey da koy génn te du ko leer. ñun dañoo am papa. yaa tànn yaa am yaay xamante nañ am nañu papa am nañu yaay bokk si famille bu baax doom as as góor as góor am na lu muy joom. gerte la am nañ nekk ñëw wi di waaraatee. man waaraatee la nekk oustaz bàyyi waaraate bi ñu la <laughs> ko dañuy wax benn. soxna maa ngi ñaan yàlla baal waaraate bi su dee damay xam naa. su dee waaraat ak gàncax ñoo xam ñun lu ñu bëgg. wax ñun lu ñu mën a wax ci laaw lañ nekk dañ nekk ci laaw lañ nekk si ñaar quoi wax mooy wax dañuy neexal te bu taw loolu. yow ça va 27 avril si kàttanu borom bi. dinañu xam ne même mbooro bi daan ñëw. ci kàttanu yàlla suñu borom maa ñëw mbooro bi di ñëw. mbéy mi yow noo ñëw baax na noo ñëwee baax na yow da ngay ñëw daanu. Ah, sa waay da ngay ñëw daanu. lu garaaw laa lay wax te yow xam nga loolu. waaw yow li ngay kañ diwoo ko. ku la xam la da nga ne xam nga ma ku la xam laa ndànk rek kon. waaw di woo ñi lay branché di la woo di la wax. ñooñu di la wax bis ba démb ba daw Aliou boobu noonu ay ay branché benn ñu ma bëre wax naa la yaa si gën a néew la bëre. yaa ngi gën a néew la gàttal yaa ngi gën a néew la waaye maa lay jàpp kuy daan boppam du ma daan. maa lay jàpp wala dégg nga dégg man du ma juum du ma juum. man damay juum daan la. laa ne yow fi ngay juumee ngay xaar. waaw waaw waaw. wooteel. jaajëf wooteel waaw wooteel waaw wooteel waaw.

mais nga man doomu séeréer bi ngay waxal doomu mandee mandee bi ngay waxal yow poko poko bi du la may benn côté ngay ndeelu nii lala eh man ngay waxal eh xool ma man ngay waxal ngay bëri wax yow garab nga ñëw lem tey ngay neexal ay dimension la yow xam nga loolu sax <laughs> di woo waa Morola yëpp di woo Maguette Mbaye maire commune de Notto bi maa ngay woo si laa ji mu ñëw jaab si ah di woo samay mbokk séeréer yëpp loolu noon combat bi oɗon xamna mbega mbor hino asan fay heɓinomo baaxa baax ɓe miɗe moloɓ xan moloɓ xan billahi wallahi mouhamada an miɗa kenide i minute jinɗe waaw mi dok mi dok mboy puutta tamit mboy puut mi dok mboy puutta mo baax ron eto kel woro hoɓi so combat combat ɓe combat ron eh? wowaɓuralaɓe yeɓu ɗi wo autorité yi kirama ña maya lay woosi combat bi Baye Amadou Camara ñu ngi lay woo si laamu ji nga ñëw jaab si ah di woo xës tari si combat bi ñoo leen jaab si monsieur le maire ñu ngi lay woo si combat bi ñëwal jàpp si bu baax a baax Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay woo si làmb ñëwal jàpp suñu jigéen Nabou Daas mm-hmm. ñu ngi lay woo si combat bi ñëwal jàpp si bu baax a baax xam nga di woo Jaxaa yëpp waaw di woo sama papa wës ñëwal jàpp si combat bi sama papa Ibou Thiaw ñoom Moussa Naar ñoom Pape Amdi xam nga ñoom Ba ñoom bay Seye affiche baa ko woote di woo ñëpp non kii daa war a woote naa ko bàyyi ak wooteem man damay woote ba mu dal di woo sama gaa yëpp suma waa écurie samay kot yi waa ñu ngi siy jaabu ba tey billaahi walaa kii matul Thiès gars yi na seen xel dal de le 27 ndam li incha allahu rabi jaxale ñibbi ak Morala si kàttan yàlla suñu borom di woo ñëpp. jaajëf. waaw di jégaluwaat tamit su dee dañ fee dépassé kenn wala dara su dee dañ fee wax lu ñaaw tamit per ñu ngi jégalu ndax ñun ay xale lañu rek dañuy jaay làmb làmb ji sax dafa naan jaay na boppam même Mboro afisam rek jaay na làmb oh. billaahi du si moom waaw maa ngi woo bépp ASC bu nekk biir caaro yi du ma tudd benn ASC maa leen di woo di woo waa Fallou Warga jàpp caaro yi pàkk ñaami pàkk naajo yëpp maa leen di woo di woo waa jàmm gën tund jàmm gën bi yëpp jàpp talimaam jaara guy ga dawkat sareet yi maa leen di woo bu baax a baax a baax talimaam jaara ma fi am mbay xaraa bi yëpp maa ni woo di woo yilla baaba borom lamsaar moom sama waay la sama lépp la mbay xanaa am na combat de moom meeg. moom di ko ñaanal ndam lu sedd guy mu laal mu daanu laa koy ñaanal laal mu daanu xam nga laal mu daanu. Mm. ak képp koo xam ne am na làmb biir jàmm gën maa la koy ñaanal. ak képp koo xam ne am na làmb biir caaroy maa lay ñaanal di nuyu sama grand fóorus bu baax gis naa taxawaayam si làmb yi abo waaw yaayu mbay xaraa tamit maa koy nuyu bu baax a baax a baax ndax yor mbër rek dafa metti commune Kër Moussa bi yëpp 37 villages yëpp. maa ngi leen di bëggee sama grand mussa Sibba gis naa taxawaayam sama grand Alsane Ciss sama mag yàgg nañoo ànd mu may defal lu ne maa koy woo si lamb ji mu jàppale ma bu baax a baax di woo Alpha B waaw Tafa Ndiaye fay Faye naa fay ñëpp maa leen di woo Xaadim Sall waaw di woo kii Tafa Velo Séeri Fat Sall maa koy woo bu baax a baax a baax Pa Moussa ñëpp maa leen di woo di wax père képp ku ma mën a jàppale ñaanuma la xaalis laajuma la dërëm jàppale ma samay ticket te yàlla tax képp ku ñëw dëkk tund boobu noonu nga pare pour jàppale ma ñaanuma la ñaar dërëm laajuma la dara jàppale ma samay ticket nit ñi dugg esar mm-hmm. di nuyu ñëpp jaajëf di bëggee ñëpp ñi ma àndal di nuyu sama grand sóoro mi toog mm-hmm. ay ñoom sëñ Fallou El Hadj gis naa taxawaayam bu baax a baax si làmb ji nii nii Ibou Laye di nuyu ñëpp waa Lamsaar tamit ma fi yaa CFA bi ak mafia Senzala bi mafia CFA bi alaaji paate bu ma leen faate mafia Senzala bi waa ginnaaw raay jël naa nuyoo bi teg ko si Aba waaw soo demee Cambérène jël naa ko teg ko si Vito ñu si kaso bi tamit Babacar Dieng bu ma la faate yow sama waay nga yow sama lépp nga waa Campenal nuyoo bi yëpp teg naa ko sa loxo waa Samet Baye Njaga Seen di ko nuyu bu baax di ko ñaanal waaw may ma ma woote. may naa la temps bi de. waaw xam naa loolu. waaw yow yaay comp non yow yaay comp rek na de. man moom damay woote. waaw action waaw ah, wax dëkk laa. li nga woote loo ci teg mooy loolu dëkk bi ñëw. waaw wallaay bëri dëkk laa di woo ñëpp. Samsam 1 Samsam 2 Samsam 3. Fallou war nga bépp borom càq-càq bu fay taxaw maa la woo si làmb ji. day ni daanu seen doole. yéen ñëpp ñëw leen jàppale ma borom super yi. mënuma ñàkk de tali jàmm. ASC yu nekk foofu yëpp woo waaw père di woo ñëpp di woo ñëpp maa ngi woo ñëpp sox di ñaan yàlla ndam sa kaw di woo waa Gambi waaw di la nuyu bu baax a baax waa Gambi surtout waa Kosorop ñoom Baye Fall xam nga ñu si mel ne ñoom Kaana Badji xam nga ñoom Mikel maa ngi woo ahlu bande Gambi bi yëpp si combat bi di sant waa Casamance waa Tilaay waa Kanilaay xam nga waa Silinki waa Jaabang ah. ñëpp maa leen di woo si combat bi ñu jaab si ah di bëggal sa mafia si dimaa ba waaw mafia si dimaa bi waa ñoo fa teg jeexal maa leen di woo si laama ju baax a baax ma fiyaa poko poko bi ak ma fiyaa mande mande bi kii lu ma koy wax bëriwul tey laa mujjee wax ak yow jour yi danaa la duma naa la daan waaw may woo may Ñaa sama xarit Birama Ñaa waaw mënut a ñàkk Birama Ñaa kooku day def teraanga ci bés bi kon faaw ñu woo ko loolu mënul ñàkk ñu woo Birama Ñaa Birama Ñaa mu ngi lay woo ci bés bi eh, jërëjëf suñu mbokku téléspectateurs